mooy l'affaire Amy Ndiaye ñibbi des parlementaires yu ñu jàpp ñoom tamit ce même jour-là dañuy évoquer seen dossier en appel ils ont été condamnés à six mois de prison ferme ndax yow euh, pour pour pour pour l'affaire Amy Ndiaye ñibbi ndax jàpp nga ne ces députés devaient être traduits en justice jugés et condamnés kan ngay imputer la responsabilité dans cette affaire jugé condamné moom kooku tribunal moo ko ci condamné moom tribunal moo ko mën jugé moom bon <laughs> sénégalais gis nañ devant la face du monde li xew man j'étais là bon y a une scène que ñun ñëpp ñu gis am déet par rapport nag à l'occurrence de la situation enclenchement processus boo xam ne loolu mooy c'est-à-dire agression bi mooy point culminant je vais y revenir un peu mais je condamne de la manière la plus ferme l'agression je l'ai fait à la tribune de nationale loolu moom moo nag mooy suma lu ma wuteel ak ñëpp parce que man ba principe taxawee du ma gis leneen lu muy principe on peut pas en vingt et siècle accepter une agression vis-à-vis de qui soit rawatina nag une dame waa parce que xam nga lan mooy lan mooy loolu munoo fajal sa bopp te député moom mooy voté loi loi dafa ne waroo fajal sa bopp bu ñu la tooñee demal ko porter plainte wala bu ñu la defee lu jéggi mais xam nga lu tax cas boobu difficile woon ba ma comprendre maintenant li indi loolu deux jours avant man mi wax naa président assemblée nationale et il y a eu un incident à l'assemblée nationale d'ailleurs qui man maa taxoon bi la dame dont vous avez parlé la, la députée dont vous avez parlé n'arrêtez pas de ma di ma sànni ay kii yu metti kàddu yu metti saa yu ma jëloon kàddu daf may wax yu metti ba may jour boobu sax dama taxaw pour la première fois taxaw xool ko li daan daanul def yeneen yu njëkk yi dama daan wax li may wax rek dem noo ko woo warkat nga yow fi nga nekkoon du et cetera wax genre wax yooyu Eh, mais je ah boobu am na lu mu wax lu ma lu particulièrement dire ma marqué 30 secondes yu mujj yi waxuma ko dama dem immédiatement euh, notre dé notre camarade co collègue Sanou John que je salue au passage di ko souhaiter bon ramadan wax appel au règlement ni règlement intérieur assemblée dafa tere article 57 je pense dafa tere kuy wax ñu koy dagg. surtout di wax ak ci moom ay yu. di ko saaga ak di ko wax yu yu doy waar. ñu ne président président bi ne waaw dégg naa di ngeen dinaa leen tontu ñu ne ko non il faut nga régler ko léegi naa leen tontu ci jour boobu la am beneen instant bu ñuy wax wax na ci sëriñ bi wax na ci nangam nangam mais loolu dafa waroon am responsabilité nag jàpp naa ni assemblée groupe bu nekk am na am na euh, kilifa. groupe yëpp yëgoon nañu man am nañu ci waxtaan ci responsable groupe yëpp quasiment ne leen lii raam ni dina am incident un jour parce que man demoon naa ba dégoûté bëggatuma sax toog ci assemblée nationale ndax wax yu bon yi wax yu mais fépp la doon jibee nag et loolu daf ñu war a renseigner ci suñu tolluwaayu assemblée maanaam problème yi ñu fi doon wax yi contrat yi man yaakaaroon naan bu ñu ñëwee dinañ wax ci génne rapport IGE bi nga xam ne mu ngi ci internet man bu ñu bu ñu ñëwoon assemblée sañ naa ko teg ci table bi du ma ne rapport bi naa am sañ naa ko teg ci table bi parce <laughs> ci internet laa ko fore ma laajee fii laa ko fore ñëpp mun nañ ko gis ci internet naa sañ ci wax lu ma lu ma xam mun nañ jël ay heure wax ci sénégalais yëpp xam lan moo xew ci pétrole bi ak yan moo war a nekk saafara yi Dakar dem dikk bi ma doon wax sànq post post je vous chiffre d'affaires poste c'est non masse salariale poste mm -hmm. c'est cent quarante sept pour cent chiffre d'affaires le ministre l'a dit deux cent quarante sept pour cent maanaam amul lu gën a yées ci yorin ak doxalin poste mooy li ñuy wax sànq ni ñun dañu bëggul développement parce que amul benn entreprise loo xam ne li ngay fay say ouvrier ak say liggéeykat moo ëpp ful na ñaari yoon li ngay am comme recette loolu mënul nekk. et malheureusement assemblée dafa teg ci yo ci yooyu la ñu waroon di gën a xuus jël débat bi décortiquer ko def parce que loi dafa ne par exemple bu assemblée euh, poste tolloo ci digg yooyu ci situation yooyu euh, code de loi l'OHADA hmm, euh, acte unique de l'OHADA plutôt am na ay articles yoo xam ne dañu ne immédiatement dañu war a def assemblée générale. jël def ko sous tutelle jël ay botuwaay lu tax ñu ñu tabb ñu assemblée nationale jox assemblée nationale gëdd boobu pour vérifier ndax gouvernement bi mu ngi doxal noonu wala doxalul ba la ñuy voté budget bi waroon nañ ci gën a leeral àddu mais 80 pour cent du temps saaga yi xuloo yi xarante yi taxoon na ba les vrais problèmes mënuñu ko woon posé d'ailleurs gis nga assemblée tëj na depuis deux mois tey jii nii loolu aussi c'est du non droit. Mm. ñu tëj assemblée tënk ko nii parce que opposition baa ngi fa bu ñu waxee ñu dégg donc loolu laa mën a wax et ce qui demande quoi ce qui dit que fondamentalement bu fekkente ni andiwuñu ñun toog assise nationale yi mu fi indi woon andiwuñu réforme profonde ci suñu réew mi ci suñu justice ci suñu assemblée nationale boo moytul ci gannaaw rek la ñuy